وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اسمه أنا الدكتور محمد عبد العزيز الموسى من المملكة العربية السعودية الرياض ما شاء الله بارك الله فيكم الله خير. أنتم الممولين لهذا المشروع؟ نعم نحن الحمد لله ببركة الله وتوفيقه تم تمويل هذا المشروع حضرتم اليوم من أجل أي شيء؟ حضرنا للاطلاع على استكمال المشروع وإن شاء الله سوف نتابعه أيضا بجهود الرابطة الندوة العالمية للشباب الإسلامي فجزاهم الله خيرا على ذلك كما أنني أشكر الحكومة السنغالية على التسهيلات التي أتاحتها لنا لتقديم بعض المشاريع التي نأمل أن تكون تخدم إن شاء الله إخواننا المسلمين في السنغال و كما أنني أيضا أشكر الحكومة حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بسيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على ما يقدمونه من دعم للمواطنين للمساعدة تمكين إخوانهم من المساعدة في الدول الإسلامية وخاصة في السنغال لها مكان في القلب ما شاء الله بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وكيف وجدتم الاستقبال أكثر من جيد جزاكم الله خير الجزاء شكرا على ذلك بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا شكرا لكم ايوه ترجم ان شاء الله léegi damay wax à son nom quoi voilà donc c'est bon je suis très heureux de venir au Sénégal à Dakar ici dans le département de Rufisque à Kounoun pour l'inauguration de centre que j'ai eu à financer et je remercie aussi l'État du Sénégal, je remercie aussi euh, le, le, le Royaume d'Arabie Saoudite de nous avoir donné les possibilités de pouvoir aider les populations musulmanes partout dans le monde. C'est un plaisir et aussi je suis très ravi euh, de cet accueil chaleureux qui m'a été réservé ici et je pense que ça sera un centre et une école et un mosquée qui pourra servir l'éducation et aussi servir la croyance des musulmans pour que cela puisse apporter une plus dans l'éducation, mais aussi dans la construction de, l'humanité, mais aussi des hommes et des musulmans du Sénégal. maa ngi am euh, mbégte dina aussi dina mën a jëriñ communauté musulmane bi dina mën a jëriñ te lépp ñoo xamante ne mooy l'humanité tout entière loolu daal benn mbégte la boo xamante ne ñaan naa yàlla mu doon loo xamante ne benn benn benn début lay doon pour que à l'avenir ñu mën a am leneen loo xam ne dañ ko fi mën a réaliser li nga xam ne chaque jour day nekk rek euh, pour servir et aussi accompagner la euh, la communauté musulmane. maa ngi tudd Pape Medoune Mbaye Euh, maay président association Ar-Rehab pour le développement humain. jazaak jërëjëf euh, Papa Medoune Mbaye ñu ngi lay dalal fii ci Mouslih euh, TV di la laaj projet bi nga xamante ni moom lañ ñëw fii tey ci inauguration am ban projet la noo koy expliquer. waaw d'abord dañuy sant yàlla subhanahu wa taala moom bi nga xam ne moo ñu jàppale ba ñu àgg fii tey ba li taxaw ginnaaw bi ñu sant yàlla ñu sant royaume Arabie Saoudite sant gouvernement bi sant peuple bi mais sant itam ki nga xam ne mooy docteur Mouhammad Abdoul Aziz As-Soulayfi moom mi nga xam ne moo def lépp ngir centre bi xaw tey jii ba ñu mën ci teg suñu bët kon ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant centre bi nag centre la boo xam ne li ko tax a jóg mooy jéem a yar jullit yi doomu jullit yi jàngal leen seen diine waaye tamit jàngal leen li nga xamante ne xam-xam la yu xe yu bees la yu ñëw ci jamono ngir ñu mën a dund ci jamonoy tey waaye tamit ànd ak seen pas-pas ànd ak seen jikko yu rafet centre bi euh, li nga xamante ne moom moo ko tax a jokkoon mooy contribuer ci éducation suñuy ndaw contribuer ci éducation suñu peuple bi nga xam ne mooy peuple sénégal te ñun xam nañ ne éducation mooy baasu lépp jikko yu rafet yi mooy baasu lépp te centre bi incha allah loolu moo ko tax a jóg mooy tasaare jikko yu rafet yi macha allah donc euh, lan ngay wax ci li nga xamante ni moom mooy euh, gan yi fi ñëw. waa gan yi li ma leen di wax rek mooy centre bi centre ñëpp la waaw markazul ihsan markaz la boo xam ne ñëpp ñoo ko bokk jullit yëpp ñoo ko bokk amul euh, ku ñuy boddi waaye ñëpp ñoom ñoo ko bokk su ko defee ñu ngi ubbi bunt yi ñeel ñëpp waaye rawatina ñuy dëkk ci gox bi diggante njaxiraat Tiwaawan Pël ñàkku rab ba Kër Masaar ñëpp ñu ngi leen di woo ñu bàyyi xel ci centre bi xam ne seen centre la indi fi seen i doom ñu yar leen yarub diine dinañ fi jàng programme euh, gouvernement bi waaye en même temps tamit di am na enseignement islamique boo xam ne dinañ ko fi jàngale kon centre la boo xamante ne ñu ngi ci euh, ñu ngi koy ubbil ñëpp ñëpp ci bokk ñëpp ñoo ko moom peuple sénégalais yëpp ñoo ko moom. donc centre bi lan ak lan moo la composé moo ko composé. centre bi am na une grande mosquée. foo xamante ne dañ fiy julli les cinq prières dañ fiy julli tamit julli aljuma am na tamit euh, une école école boo xam ne am nañ fi six classes ak une direction donc euh, ci gàttal loolu mooy li nga xam ne moo nekk ci ci ci centre bi euh, am na tamit bloc toile bloc sanitaire donc loolu mooy li nga xam ne moo composé centre bi jërëjëf jërëjëf